VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 8524 VIP People DAL, Je pense que Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Je commence par euh, la remercier, la présidente Innocence Tapniaï, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Vous la voyez, elle est pratiquement familière euh, de l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale, je pense que dans la vie d'une organisation patronale ou professionnelle, elle est fondamentale. Ça nous permet de nous retrouver une fois par an, de voir le chemin parcouru, les perspectives, d'échanger, de recueillir les contributions les positionnements des uns et des autres, et puis d'avoir un agenda annuel. Et ce qui explique la constance. Et aujourd'hui encore, je dirais encore, Madame la Présidente nous a fait l'honneur, le privilège de venir communier avec nous, euh, présider, ouvrir cette 23e session. 23e session, ça voudrait dire 23 ans. Depuis 2000, d'une façon très constante, je dirais comme euh, des horlogers suisses, hein, à chaque mois de mars, nous organisons notre, euh, Assemblée générale. Donc euh, je m'en félicite, je m'en réjouis. Et je pense que c'est un signal fort pour aussi les autres organisations sœurs hein, de pouvoir faire comme le MEDES. Parce qu'au-delà de cette Assemblée générale, le MEDES a 6, 6 à 7 événements majeurs dans l'année. Et chaque événement, son timing est respecté est organisée et au bout, il y a du succès. Madame la Présidente l'a dit tantôt, nous avons commencé l'année par l'atelier training du Forum du Premier Emploi. Nous avons enchaîné par le Forum du Premier Emploi. Là, nous sommes à l'Assemblée Générale. Après le Ramadan, c'est la 18e édition des Corridors qui est devenue aujourd'hui la première cérémonie de ce genre en Afrique. Ensuite, nous avons le Salon Afritech dédié aux start-upers. Aussi, Afritech est devenu aujourd'hui le premier salon des instateurs de l'Afrique de l'Ouest. On enchaîne sur les assises économiques du MEDES. Et cette année, volontairement, j'ai sollicité et obtenu euh, l'accord euh, du président Blaché, parce que je suis le vice-président du groupement du patronat francophone. Les trois dernières années, j'ai organisé même ici à Dakar le Forum international des entreprises francophones avec plus de 88 pays francophones. Cette année, j'ai demandé à ce qu'on s'exporte vers les pays du Golfe et c'est Amman en Jordanie qui va nous accueillir. Et donc si je continue sur l'agenda du MERES, euh, pour le mois d'octobre, nous organisons un grand séminaire de très haut niveau avec les deux plus grands coachs moniaux connus internationalement qui seront à Dakar pour justement animer des sessions de formation. Tout ceci pour dire qu'on a un agenda très chargé, mais nous essayons de nous donner les moyens pour justement réaliser euh, notre agenda annuel. Et c'est ici, je pense, le moment de remercier mes collègues qui sont avec moi. La présidente l'a dit dans son discours. On voit que le président, je porte le mouvement, mais derrière, il y a des personnes qui sont là, qui alimentent. Il y a un comité scientifique. je, pense que c'est l'ensemble, la somme de tous ces efforts qui font qu'aujourd'hui, on a une, euh, le a un positionnement spécifique dans le patronat sénégalais et dans le monde du secteur privé et je m'en réjouis. waaw di sant yàlla di gërëm sama jigéen sama xarit présidente Innocence Tap Ndiaye ni nga ko xamee at bu jot mu ñëw assemblée générale bi Nek suñu wet depuis mu nekkee ministre du travail donc léegi mu def euh, fukki at ak juróom-ñett wala fukki at ak juróom-ñaar musul bàyyi parce que dafa naa lima gëm mooy Sénégal lu ma gëm mooy secteur privé lu ma gëm mooy liggéey dafa am solo ñun ñoo bokk dëkk bi sa ku si nekk am nga benn pàcc boo xam ne rek si war a liggéey bu fekkee dañu war a dajaloo tamit di waxtaan kooku euh, avantage bu mu am mooy jëmale réew mi kanam dëkk du politicien yi ñoom ñoo ko yore mais politicien yi dañ ci baax parce que la politique sens noble du terme c'est la gestion de la cité au quotidien mais aujourd'hui, la nouvelle génération de politique a une vision un tout petit peu différente et la politique a pris, merci Olaf, pouvoir de le monde économique. Ce que ku créer des créer alal croissance ce investir loolu bu donc il faut nit da ngay gis débat sur internet bi télévision yi radio yi yëpp affaire politique la ñuy wax dañuy fàtte économie man je suis un homme d'entreprise sama quotidien wala suma télé wala sumay radio bu ñu defee la une sur économie dafa avez 50% de moins donc li ñu leen intéresse, rek mooy politique donc vous êtes obligé ngay peu,

naka lañuy def des am ci parce que bu amul fitna bu avons mënoo am sérénité boo mën a ko donc ñuy ñaan yàlla aussi yàlla fait jàmm ci réew ku nekk xam lan mooy sa responsabilité nga def ko donc ñun ñu ngi rafetlu nag li ñuy def yàlla moo ci xiir yàlla parce que suñu nous kenn ne at bu jot nga assemblée générale def assemblée générale donc ñun dañ L'Assemblée générale vous nga dajale ñëpp ngeen waxtaan changer bureau bi ñi liggéey bu baax dafa mel ne gouvernemental nous ñi liggéey nga conforter nous ñu liggéey nga changer leen ñu nous souffle bu ne ne day mouvement parce que mouvement nous lu koy dundal France Paris ñu nga foofu mouvement bi boo demee Bruxelles ñu ngi foofu boo demee Genève ñu nga foofu boo demee New York ñu nga foofu boo demee Washington ñu nga foofu soo demee Montréal ñu nga foofu soo yëpp ay cadre chef d'entreprise sénégalais ñoom ñoo ngànk MEDES si dëkk yooyu loolu yëpp nag seen contribution si dëkk bi dafay tax dëkk bi di gën a dem kanam ñoom si boppam tamit

di sante yalla de remercier votre présidente vraiment suma ma jigéen nit ku bax la institution bu mu yoree médecin nga fa parce que yalla dogal na institution yep ak conseil d'administration de surveillance yep ñu nga stratégie stratégie nationale euh, du développement du secteur privé Modibo Diop moko yoré euh, réforme du code des investissements Boubacar Sam pratiquement mo def contribution yep

ce bureau bi du ay milliards ay millions d'euros mais xam-xam moo tax ñu fexé ba taxaw fi bureau donc nak sante yalla di len gëreum yeen tamit di len sante liggéey bi mom xamna metti xamna lolu naa loolu man a yéen ñoo si nekk ah même bu fekkee ne casquette président d'une organisation patronale amaat naa casquette hein patron patron de presse donc xamna naa ne fu mu nekk nii métti na hein presse bi aussi bo ci duggé rek day fekk nga am passion parce que lolu lo xamné ne da gagner, alal da ngay rek.

ah ak Awa ak seen naataango encore présidente vraiment Fatou je la remercie hein, maa rendre encore hommage fu ma ko woo mu ñëw lu ñu soxla mu taxaw so loolu dafa ko pour Mbagnick daf koy def pour comme comme dëkk bi pour secteur privé bi ñëpp la amal jam. Je précise toujours que le MEDES est une organisation qui siège au niveau de notre institution et qui est représentée par euh, des personnalités très dynamiques qui participent à la vie de l'institution. Donc, il est de mon devoir et le devoir également des autres membres de l'institution d'être présent euh, aux activités qui sont organisées. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi les liens euh, qui me lient à Monsieur le Président du MEDES, qui ne manque pas chaque fois que de besoin de faire appel à l'institution et d'intervenir de discuter, d'échanger avec la présidente que je suis. Par ailleurs, nous veillons à la régularité de la tenue des instances des organisations. Nous avons des dates phares avec le MEDES. Nous avons le premier forum de l'emploi. Nous avons également, qui est adressé à la, jeunesse, nous avons également cette organisation des assemblées générales qui se tiennent de façon régulière. Donc, tout ceci sont des éléments, des facteurs qui font que l'institution va continuer aux côtés du président Banik Diop à travailler pour euh, faire partie de ceux qui œuvrent pour la prééminence de l'économique sur le politique. Ça, vraiment, je l'ai dit lors de mon propos, nous sortons au long d'événements assez malheureux que nous condamnons et nous voulons juste lancer un appel à travers donc, euh, cette journée de réflexion je pense que le problème même sera abordé par les membres. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se ferme les yeux. Lorsqu'il y a une situation, il faut se prononcer et de façon publique. En fait, nous, nous appelons euh, tous les acteurs à la sérénité. Le Sénégal est connu pour sa démocratie. Le Sénégal est connu pour son sens hautement élevé du dialogue. Il n'y a pas de sujet tabou au Sénégal de sujets qu'on ne peut pas aborder entre acteurs de premier plan qui tiennent justement à la pérennité euh, d'un Sénégal de paix et de stabilité. Donc je pense que, Monsieur le Président, je ne dévoile pas un secret. Je vous sais très très euh, proactif et vous ne manquerez pas au cours de cette Assemblée générale de signaler des faits qui méritent une réflexion et surtout des actions il faut agir et vous êtes un homme d'action. Je vous fais toute ma confiance. Wa MEDES dafa nekk organisation bo xamné dafa am ñuko téwal ci institution bi nga xamné man Yalla def na man maa jité. bu lolu wéyé ñi nga xamné ño fa teewal institution bi mënon na ñëw rek di ñëw réunion di dem Waye bu ñu non seulement dañuy participer ba paré dañuy informer président informer président li nga institution bi mu donc loolu dafa am solo parce que nit ki li nga bokk doo xaar euh, ñu la man lolu moma bolé ak mu aussi ko xamné dafa constant te lolu dafa jafé ci jamono tay ñun dañuy seetlu organisation yi nga xamné ñoy organiser ay événements majeurs pour permettre aussi la liberté d'expression au sein des entreprises au sein de l'organisation donc mom vraiment dafa nek président bo xamné dafa accessible ba paré dafa dafa open li xalé nan dafa open parce que day waxtané luñu jara waxtané da koy waxtané loolu day tax aussi tey euh, Sénégal amna lu mu dund ñaari fan yi passé mu metti lol té aussi bo néké bitim réew bo gissé image da ngay né fi du Sénégal ndax ñun fi lañu juddou juddu màggee fi euh, suñu famille yépp nek fi limay nan duñu dem fenn fii la ñuy fekk Sénégal mu am démocratie boo xam ne yeneen dëkk yi nañu koy nawee Sénégal mu am euh, dialogue dialogue bi du tey nañ ko institutionnaliser rek mais yàgg na fi mu am fi aussi ay kilifa yoo xam ne ñoo xam ne seen taxawaay rek si réew mi jarul sax naatamle amul lu ñu mënul waxtaanee donc bu dëkk demee bu tollu fii waxtaan rek moo ko si mën a génne donc ñuy woo ñëpp surtout secteur privé bi ndax ñoom bu jàmm amul ah entreprise yi du dox bu jàmm amul liggéeykat yi man démb rek am naa audience ak les sortants de l'ENA ñi ngi naroon nekk 23 ñu ñëw 12 mais lan lañ ma tontu dafa am ñu ragal génn parce que dañu foog ne dafay am mouvement. léegi loolu exemple la léegi da ngay jël nga multiplier ko nga xam ne démb am na ñoo xam ne xëyuñu am na ci ñi nga xam ne ñoo yor bërëb liggéeykaay yi dañu tëj am na ñoo xam ne. dañu nar a liggéey mais demuñu te motif bu ñu bu ñu teg kenn du leen sanctionné si motif boobu parce que bakkanu nit kenn mënu ko remplacer donc loolu boo ko jëlee ci benn euh, kii bu ndaw rek da ngay jël multiplier ko si Sénégal yëpp ba mu jeex kon dañu nar a jóg sol suñu ay dàll dem ci ñi nga xam ne li leen intéressé mooy Sénégal wéy si jàmm ba pare li nga xam ne ñëpp moom la ñu bëgg muy émergence Nous nga créé ne créer richesse ñu mën a liggéey ci sérénité dafa baax ci réew buñ ko amul wax bi du fi neex dara dara du fi VIP People TV VIP People TV le site des grands événements partout à travers le monde abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos pour vos pips et reportages n'hésitez pas appelez tout de suite le 77 106 85. deux quatre VIP people daal fa lay lépp di leere